Bonsoir chers internautes, bienvenue dans votre première émission sportive sur la chaîne YouTube Africa TV Tay ñu am mbégte ak contentement ñëw fii biir Géejawaay di wër ben champion bu mag dem nañ nak nag ñu ko fa Légui ñu jëm ci kër xaritam ñu xol ba xam mu ngi ci biir Légui damay wax sama caméraman ñu topuma ma ñu xol tay kan moy suñu invité du jour.

ak xalifa euh, di ziar ñëpp daal bàyyiwuñu kenn. tey buñ la doon wax euh, lan nga décriral ñu Lac de en quelque phrases lan nga ñu mën a wax. waaw Lac de Guiers 2 euh, nekkoon nekk fa depuis bu mu nekkee booy ba léegi xam nga ay tàggat ko ba tey ñu génnee ko tuddee ko Lac de Guiers numéro 2 mu dugg ci làmb ji nag. def fa jaloore bi nga xamante muy tax nit ñi xam ko. like est-ce que mën nañu xam ndax euh, judd wala passion la. non làmb judduma ci samay maam nag daan nañ bëre ci sama côté yaay ñoom ñoo doon bëre mais man dama xëy rek bëgg ko di ko def. di bërante di bërantu géej nekk fa ba ni ma demee écurie Waalo te ki ma yóbbu écurie sama patron la ki ma métier. ma mm. yóbbu écurie frigoriste jang na ko bam sama diplôme après ci la sama patron la ma lo bëgg def fekk ma ngi nek geej di bërintu ma ko dama bëgg bëré mu may réta mu ne ma bëre ma ko waaw mu ne ma ñeme nga kuy ma ko ah, bien sûr si ma jëlé yóbbu ma ikiri waalo comme mom waalo walo lo won mu denk ma walo walo yi lool mom mo taxoon. est ce que mën nañ xam ban combat nga bëré mu metti lool ci yow. wa sama combat bi ma bëré mu metti contre. Babacar bu Faas combat bu metti la woon parce que xeex nañ xeex bu metti mu am ci fracture loxo ma kon di ji bëreek moom ba daan ko combat bu moo gënoon metti léegi yow mës nga dem ci làmb nga sentir na yow tey jii dañ la jàpp mystiquement wala pare woo ko physiquement déedéet fàttalikoo moo ko de jàpp ma mystiquement déedéet mais am na sama combat boo xamante ne boobu moom mënoon naa dugg nañ ma tuuti ci mystiquement muy contre sos waaw. phénomène bi am léegi ci làmb bi ndax du suuxal làmb genre diw sama mbokk la duma bëri ak moom wala diw ñoo bokk koñ duma bëri ak moom. waaw xam nga tey boo xoolee comme par exemple mën naa jox benn exemple sama diggante comme boo nee comme ak Balla Gaye xamu la tey papam ak suma turandoor ñoom ñoo doon ànd yaa ngi dégg kooku noonu. tey bu fekkee na nga ñëw bëreeg moom dafay nekk loo xam ne dafay ñaaw parce que mel na ngay jaxase xeet da ngay jaxase mbokk yi te loolu jaru ko alalu àdduna boobu la ko jaral comme kilifa yi noonu la ñu ko waxee woon moo tax ñu koy doxee waaw sàmm waxu mag ñi ne àdduna boobu leen ko mës a jaral ba ngeen di bëri waaw. léegi ñu ñëw ci wàllu bi am ci làmb ji gis nañ ko tout récemment diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu Euh, violence bi am ci làmb ji te amateurs yi di ko ñaawlu ba tey léegi yow loolu lan nga ko lan nga siy jàngat aussi ban message ngay lancé mbëri ndaw yi pour sensibiliser leen. waaw xam nga loolu dañ koy ñaawlu ah parce que nit préparé combat am ay weer nga xëy xëy rek ñëw ci benn jour rek mu yàqu noonu te ñëpp dagg seen i billet ñëw pour fay képp ko xam Alioune Seye 2 xamee ko Alioune Seye 2 yaram ak teggilam ak li nga xamante mooy fair play am. donc boo indee sa mbër mu ñëw ci stade bi ànd ak benn benn sa benn àndandoo boo xamante dafay ñëw xëpp Alioune Seye 2 dara tey Alioune Seye 2 ak yaram bu tàng bi mën na ñëw jotee kooku ñun foofu lañ juumee ah mooy fi nga xamante ne tey Alioune Seye 2 dafa ñëw dem songu waa ji te am na yoon am na moom mooy leen fu ñu papa yi fa nekk changé foofu la Alioune Seye 2 waroon xaar mais peut-être fuggam ak li mu préparé combat bi ay weer xam nga li mu ci daj yëpp mu ñëw ñu yàqu ko noonu ci gratuite loolu moom moom metti nit ñi yaa ngi de ñu ngi koy ñaawlu nag bu baax a baax ñun bu ñu sañoon làmb ji ku ñëw rek békk nga dem ñibbiwaat ci jàmm dara bu mu la ci dal mais loolu nag CNG lañ ci wax ñu jën cee jóg ay jël ci ay matuwaay yu wóor parce que tamit stade bu mel noonu ba passé demoon naa fa gis naa ñu jël ci benn matuwaay boo xamante ne alhamdulilah xam naa ne coow du ci amati waaw. waaw sama mbokk mbëri xam nga mbëri amuñu problème affaire yi àndandoo ñoom problème bu fekkee mbëri kefe ñoom pare nañ pour bëri mais tey bu fekkee da ngay ànd ak mbër mbër bi am lu mu la sant parce que xam na ne bés ba moomoo ko boo bëggee mbër bi dina la jaral nga def loolu. Hmm. yaa ngi dégg mais mbëri nañuy waxtaan ak seeni i àndandoo yi xam la conseiller leen waxtaan ak ñoom wax li nga xamante ne moom la làmb parce que tey bu fekkee tey da mbër bi ñu ñëw aj mbër ba yow doo yëkkati xaalis di jox mbër mi maanaam yàqal nga ko carrière am hmm. xam la yu mel noonu souvent mbëri la ñuy waxal ñuy waxtaan ak seen àndandoo léegi gisoo leen ni que sponsor yi dañoo commencé wàññeeku ci làmb ji xalaatoo leen ni violence bi am ci làmb ji la wala genre yu mel na non du question violence parce que boo xoolee am na sport yoo xamante ne am na ay moor yi fay am violence bi daf ci gën a feeñ dañ naan mbëri daal seen bos moom moo gën a moo gën a am bayra moom moo tax dañ naan mbëri seen bos moom sponsor yi dañuy daw. yaa dégg mais tey bu fekkee ne suñu suñu papa Matar Ba waxtaan naag promoteur yi. wax ak ñoom bu wax ak ñi nga xamante ne tey mooy sponsor yi te sponsor dinañ ñëwaat mais tey bu fekkee lépp dafa ne tekk rek ba motul làmb ji day suux benn côté bi. léegi Lac maa ngi dégg gars yi di naan Lac day rasu rek day bañ a joxe kanam gi dafa dafa ragal ku léegi yow loolu loo ci mën a wax. xam nga ñoom dañoo xamul ko mën xeex ak ku mënul xeex. la de dafa mën xeex pour nga toucher ko mooy problème. tey mbër boo ci gis kuñ ci jàpp bu ñu lay yeggee fenn boo rasul da ngay daanu gars yi loolu lañ xamul rasul fi bokk ci làmb da xool sama digganteek muur ba ma dawee ne ko cas jël yaa ngi ba ma ko dàqee lu mu def dafa rasu ba seen buntu kër <laughs> yaa ngi dégg kon loolu ci làmb la bokk buñ ko ci génnee xam nga lan mooy problème mu africain yi ah mooy maanaam du problème africain problème mbër yi. mais nag dafa mel euh, moo la moo moo njëkk jëli de. voilà exemple laay joxe foofu jël na ma jël naa ko mais problème mbëri lenn la maanaam dañoo mënul daan Lac de Guiers numéro bu ñu génnee benn lay lay bi moom mooy lan la de Guiers 2 rasu rasu ci làmb la bokk bu ñu lay jàngal dañu lay jàngal ñaar yi booy dugg ci làmb attaque ak ñu jël la nga arrière bañ a daanu yaa ngi dégg loolu boo ko moqalul fu ñu la jëlee nga ne mbàpp ci suuf te boo miinee suuf si bu yeboo dootu amati supporter te mbër bu miin suuf moom yàlla nañ ci yàlla musal waaw. gars yi nee nañ daal Lac de Guiers nul moo ko gënal defet moom défenseur la du attake déet day attaqué de bu gisee bunt day attaqué bu gisul bunt du attaqué moom loolu moom mooy philosophie ba pare bugguma défaite dama ko bañ ni ngay bañee plat nga ne plat bi bëgguma ko muy mbaxal ak muntu doon man noonu laa mel ci làmb ji su ma buggul lii bugguma ko. parce que damay xalaat ñi nga xam ñooy topp sama ginnaaw yaa ngi dégg façon xeet bu nekk day topp sa ginnaaw di la ñaanal say supporter ñoo ñëpp yaa ngi dégg di sonn ci yow di werante pendant ay weer nga xëy benn jour bëgg ko yàq ci gratuite déedéet bés boobu dala ko war a jaral nga teg ci sa bakkan parce que am na yoo xam dañuy yëkkati seen xaalis yu weex tàll ay millions di parier ci yow am ñoo xaman dañuy yëkkati ay millions di dem ci ay sëriñ te gisoo leen kon bul ñëw ci benn bés nga ñu laal nga miin suuf si. miin suuf ku koy def ku nekk ah say supporter dañuy gën di wàññeeku rek. justement en parlant de Balla Gaye est-ce que affinité bi nga amoon ak moom ba tey loolu moo continuer di régner wala am na lu ci wàññeeku wala am na lu ci yokk. waaye da nga gis gàq-gàq ah, kon tax ñu laaj. dañuy ah, ba léegi loolu mu ngi normal ba léegi sànq rek la ñu mujjee déggante du ma waxantu nag ndax bu may wax damay wax te yàlla tax sànq ñu ngi déggante maam waaw. kon gars yi comme ni ngeen ko déggee Lac nee na moom ak Balla Gaye 2 amuñu benn gàkk-gàkk. en parlant d' année blanche gis nañ ne def nga ñaari année blanche yoo bëri 2007 2008 ak 2012 2013. gis nañ ni nga def euh, deux années blanches léegi loolu amul wenn gàllankoor ci sa carrière. waaw mais mbër parce ñun luñu bëgg moy bëre rek di bëre di am ndam xam la di gagné ci suñuy moy am ci xaaliss bi yu yëpp mais nak du suñ coobare mënuñ ci dara ci la bokk parce que njëkkeewu moko tu te mujjeewu ma fi waaw. est ce que la gaay yi ñew ngi fëgg. waaw man nak duma wax promoteur comme ni ma koy faral di waxe sama manager lañuy waxal buñu waxe ak sama manager après nag sama manager rendre ma compte mais am na mbëri ñu jot a wax waaye mbëri xam nga da ngay xaw a doy waar da ngay wax seen tur fi ñu yaakaar yaa ngi leen di préparé waaw mais incha allah lu ci mënti am rek di ngeen ci jot. léegi yow kenn nekkul sa xel yow kenn nekkul sa xel bëggoo ñu jox la kenn. am na nekk sama xel. waaw mun nañ xam mun nañ xam. Eumeu Sène. Eumeu moo nekk sa xel. revanche daal. moo daan. d'accord. laa xam ci grand contre petit. petit bu ci liggéey rek bëree grand yi. petit bu ci liggéeyul doo bëree grand yi waaw loolu laa ci xam na petit yi liggéey rek pour mën a bëreeg seen grand parce que ñun bañ ci tollee dañoo liggéey ñefe di bëreeg suñuy morom di bëreeg suñuy suñu suñuy suñuy suñuy suñu ñi nga xamante ne tey ñoo ñu xaw a mag tuuti ci làmb dem ba bëreeg suñu grand yi kon donc ñun prouvé nañ ne xale yi prouvé rek pour ñu mën leen a jox loxo ku ci prouvé wul nag duñ la mën a jox loxo loolu kese la. jàngat nga am si diggante combat Modou Lo ak Ama Baldé vu que jot nga bëre ak Modou war nga xam ci moom lu bëri. waaw combat bu neex la ah. parce que mun nga ne grand contre la boobu tamit parce que boo nee grand contre boobu c'est c'est c'est très normal parce que Ama balde prouvé na ba war a mën a bëre ak magam kon donc loolu noonu combat boo xam ne combat bu neex la mais. tay bu may kenn Ama ne bu ne conseil de grand frère laa koy wax ma ko conseil ay waxu ne contact liggéey. toutes les plans mis côté mystiquement nañ ko bàyyi ak suñu mag suñu suñu grand mooy Gilles Balde nañ mais leen la ci des côté entraînement bi na ko respecté bu baax a baax. waa xam nga am sama rakk la Ama sama rakk la tey bu bëggee roi nit boo bëggee dara dalay jaral dara man foofu laay waxee maanaam mu liggéey bu baax pour mën a am li mu bëgg bu liggéeyal du ko am mbër bu ci liggéey dëgg nga am li nga bëgg boo ci liggéeyal doo am loo bëgg ci ci ci ci plan yëpp la muy yow ak keneen ak keneen ak keneen boo bëggee dara boo liggéeyee dëgg di nga jot li nga bëgg boo liggéeyul doo jot li nga bëgg affaire bi liggéey la liggéey moo koy maye liggéey dëgg tey bu fekkoon man maay bëri roi des arènes question bi ma wax nii ama man man moom laay defal sama bopp man tamit damay liggéey liggéey yu métti pour mën a am roi des arènes foofu laay waxee loo moo tax ma koy conseil ma ne ko ne liggéey liggéey bu métti pour mën jot li nga xamante ne moom la bëgg ci Modou